bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim allahumma callimna maa yanfacunaa wanfaanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk nit ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala moom mu ñu xéewalal ñaari xéewal yoo xamante ne duñu deñ ko fàttalanteek mbokk yi xéewal bu ci jiitu mooy xéewalu julli fajar ba nga xamante ne moom lañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw ñu ñaan yàlla suñu boroom yal nañu ko yàlla buur boole nangul lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu lépp lañ ko ñaan yal ñu ko yàlla boole defal xasanaatu fil miizaan mbokk yi xam ngeen ne waxtu bi bu jotaan dinañu ànd ak yéen géema wéttalante ki ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM ñu ànd seeg suñu technicien bu baax bi li nga xamante ne mooy jaawo jàlloo di ko ñaanal yàlla yan na ko yàlla sàmm arko aar ko amin ya rabbal alamin mbokk yi bésu talaata ji di tey moo nekk ñaar fukki fan tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa di leen fàttali ne rek des na suñu diggante tamxarit di fukkeelu fan bi di fukkeelu fan des na suñu diggante fukkeelu fan bi euh, si ñenn ñi euh, juróom ñetti fan ñenn ñi juróom ñaareelu fan am na ñoo xamante ne des na suñu diggante asura huit jours am na ñoo xamante ne des na suñu diggante ak ashura sept jours waaye bésu talaata ji di tey am na ñoo xamante ne tey jii mooy seen mooy seen euh, ñaareelu fan ci tamxarit am na ñoo xamante ne tey jii mooy seen ñetteelu fan ci weeru tamxarit ala kulli xaalin lépp lu ci war a mën a nekk daal yal nañu buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin bésu talaata ji di tey am ñoo xamante ne mooy seen ñaareelu fan kon des na suñu diggante ak ashura fukkeelu fan euh, huit jours am ñoo xamante ne des na suñu diggante ashura sept jours la ci mun a nekk daal yal nañu yàlla boole nangul amin ya alamin mbokk yi bés ni ki tey moo gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante six ans at ak ñeent téeméer ñeent fukk juróom benn waaw mille quatre cent quarante sixième année la ñu nekk nii ci weeru tamxarit lépp lu ñu jaamu yàlla ci bés bi yal na ko buur yàlla nangu yal na ñu yàlla boole fekke ko ay at yu bari mbokk yi xéwal bi nga xamante ne buur yàlla dakaa xéwalal doomu aadama yi bokk na ci nelaw buur yàlla ne ñu ci alquranul karim bokk na ci wamin ayaatihi ci sama kawteef yi nga xamante ne baaxee naa ko yéen doomu aadama yi mu di manaamukum bil layl nelaw ba ngeen nelaw ci guddi bokk na ci samay kawteef nelaw bi maleen leen programme ngir ngeen di ci suubu ngeen di ko jëfandiku ci guddi wal nahaar ak bokk na ci samay kawteef yamal leen won mu di bëccëg bi nga xamante ne dangeen koy exploite di ci kër-këri wabtigaaukum min fadlihi ngir ngir mun a sàkku wërsëg ba ma leen tasal ci kaw suuf si ngir ngeen war mën a fagu la nga xamante ne moom ngeen di dundee yàlla nee na inna fi daalika mu ngi ci loolu malen joxoñal laa yaatin kawteef ji nga xamante ne li xawmin ñi ko war a exploité ñooy ñan ñooy nit ñi nga xamante ne yasmaun dañuy dégg la leen di wax waaye dañuy dégg la leen yonent di wax sallallahu alayhi wa kon képp kuy déglu aaya alquran la mu lay dottil nga di ko mën a déglu di nga mën a dégg maanaa aaya bi képp koo xamante ne yaa ngi déglu la la yonent bi di baaxee sallallahu alayhi wa ci maanaa ay ahadis di nga xam ne lala la bi di baaxee loolu moy la nga war a déglu te loolu mooy la nekk ba tax na déglukat ñooñu ñuy déglu alquran te alquran boobu yàlla wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na la ndegem yàlla moo daa bokk ci kawtifam yamu leen won mooy nelaw ba ngeen nelaw ci guddi ngeen di fa am dallukaay boo xamante ne du ngeen ko amee feneen wala du ngeen ko amee ci leneen lu dul ci nelaw boobu yàlla yénkee wala leen kon yonent boobu moo la ne boo jëfandikoo nelaw boobu yàlla ne la dafa bokk sama kawtif kon boo ci noppee dafa am kàddu bi nga war a sante yàlla nga ne alhamdulillahi mboolem xëytu cant yi ñeel nañu yàlla alladi ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal delloo ma sama ruux baadama amatana gannaaw bu ma faate te wa ilayhi nushuur ci moom yàlla la ñuy dellu bés bu ñu jeexalee dund bi kon ndegem yàlla dafa bokk ci kawteefam yam wàccee ci doomu aadama bi kon lii nga xamante ne mooy nelaw bi nga doon nelaw yow doomu aadama bi boo ci noppee bu de yenentu bi nee na lii nga war a sante yàlla amul benn sikki sakkane noonu nga war a sante yàlla kon na nga tudd baat bi na ne alhamdulillahi mboolem xeetu cant yu kawee ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amatana gannaaw bu ma faate ginnaaw mu delloo ma ci sama ruux wa ilayhi nusuur te ci moom yàlla la ñuy dellu buur bi subhaanahu wa bu ñu jeexalee suñu dund bi ci kaw suuf si loolu la koy firndeel mooy aaya ba nekk ci suratu zumar buur yàlla nee allahu yàlla yatawaffal anfusa muy faat bakken yi xiina mawtiha jamono bu ñuy suubu ci dee bu ndaw te mooy nelaw walliti lam tamut fi manaamiha bakken joo xamante ne yàlla soxlawu kaa faat ci nelaw ba mu doon nelaw bakkan jooju yàlla da koy delloo mu ne fa yumsiku leti qada alayha al mawt yàlla mu daldi téye jàpp bakken joo xamante ne ci moom la bind dee dëggantaan waaw wa yursilal uxra mu daldi delloo weneen bakken ci jëmma joo xamante ne fa la jóge ko woon ilaa ajalin musamma bakken jooju daldi continuer di dundu ba yàlla di ko jël ci waxtu bi nga ko xamante ne ci la ko àppal yàlla ne nag li ma wax nii ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci la ma wax nii ci aaya bi ah aayatan kawtif yoo xamante ne li qawmin ñeel kuréelu nit ñi nga xamante ne yatafakkaruun ñooy xelaat mbiru yàlla ñooy xelaat waxu yonent bi ñuy xelaat xelaat jinga nga xamante ne mooy méngook la aaya bi di wundu te buur yàlla tabaraka wa taala wax ñu ko kon yow bidi borom boroom xelaat bu rafet yow mi di boroom xel bu ñaw yow mi di boroom xel bu sell yàlla baaxee la xelaat juy xelaat mbiru yàlla kawteefu yàlla yàlla yow lay waxal ci aaya bi ndax la yàlla ne moom moo koy def bakken yi lii scientifique mënu ko buxaaba mënu ko intellectuel mënu ko malaaka mënu ko jinne mënu ko doomu aadama mënalu ko moromu boppam waaw xatta dina la nelawaaleel kenn ko wax nit kenn du ko mun a defal nit waaw dinaa la nelawaaleel nelaw naa sama nelaw dinaa la nelawal la nga war a nelaw loolu ba àdduna soso ak suñu jonn yàlla ji ditey tey kenn mënut nelawal keneen ci li mu war a nelaw mënumaa nelawal palaasu keneen amul kenn ki ma mun nelawal sama nelaw ya ma war a nelaw kon bu dee yàlla nee na allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne yatawaffal anfus mooy nelawal mooy faat bakkan yi xiina mawtiha jamono bu ñuy sóob ci nelaw yi wallati lam tamut fi manaamiha bakkan joo xamante ne ruux joo xamante ne yàlla soxlawu kaa faat ci nelaw boobu yàlla day delloo ruux boobu ci jëmm ba mu bàyyee ko waaye nag fa yumsiku llati qada alayha al mawt waaw comme niñ ko waxee rek jamono bu ñuy sóobu ci nelaw ruuxu ñépp dañuy daw dem fa yàlla yàlla day woo ruux yi ruuxu baadooleeg boroom am am ak ruuxu waliwu beeg ruuxu ki amak ak ki ñàkk ñépp ay génn ci jëmm yi dem fa yàlla suñu boroom tabaraka wa yàlla daal xool datu ruux bi jotagul naaka delloo ci jëmm ba mu bàyyee ko ruux jooju di mu daldi di dellu waaye datu ruux ba jot yàlla nee na ruux boobu maa koy téye léegi ruux ñi delloo nañ seeni jëmm dellu nañu ci jëmm ya ñu bàyyee ko mais ruux ba yàlla bëgg téye fa moom datu ruux boobu moo jot buur yàlla daldi ko téye fa moom jalla wa moo tax mu ne fa yumsiku mu daldi téye allati ruux ja xamante ne qada alayha al dogal na ruux boobu dafa war a faatu dafa war dee ruux boobu du dellu ci jëmm jooju jëmm jooju day nekk foofu ni nekk fa di xott lu ko nar a alimenté te dootul ñëw xalaas intaxa ñu ne kooku mu ngi nelaw nelaw jooju mu nekk di def nag xalaas jeex na nelaw boobu lay continuer allahu akbar mu ne wa yurusulul uxra ila ajalin musamma mu daldi di delloo weneen ruux bi nga xamante ne moom la namm mu dellu ci jëmm ji ndax waxtu ba ma dexalanteeg moom waxtu boobu jotul yàlla nee na ma daldi delloo ruux boobu ci jëmm ba mu jógee ko ba keroog dotam di jot moom it yàlla nee na nag li ma di joxoñal fii ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci li ma wax ni la ayatin kawtif joo xamante ne ña koy exploité ña koy xam ña koy dund du ñenn ludut li qawmin aw xeet ñi nga xamante ne yatafakkaruun ñuy xelaat ñuy xalam seen xel ci mbiru yàlla ba tax na yonentu boobu ñu wàccee alquran bañ leen jàngal nii yonentu mooñu ne buur yàlla képp ku mu yenkeewal nelaw bi nga xamante ne lañ la wax ni yépp ci biir nelaw woowu lay xewe kon na nga ne alhamdulillahi lladi mboolem xeetu cante yu kawe ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne axyaana moo dundal ba adama baadama amaatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw ah wa ilayhi nushur te ci moom la ñuy dellu bu ñu jeexalee dundu ci kaw suuf si ndax sa ruux ak sama ruux ak ruuxu keneen ak ruuxu gaañi ñëpp bàbbeeku ci guddi ci nelaw ñu dem fa seen borom subhaanahu wa taala yàlla delloo ñu suñu ruux am ñoo xamante ne seeni ruux fala des ñëw ñu seen ruux des fa moom yàlla loolu la wax ni fa yumsiku liti qada alayha al mawt yàlla nee na ma daldi di téye bakken joo xamante ne ruux joo xamante ne ma dogal ci ruux jooju dee ma bëgg ruux jooju faatu ndax waxtu bama ma ko moom jot na ruux boobu duma ko bàyyi mooy dellu mu ne nag wa yurusilul uxra ila ajalin musamma ah ruux ba nga xamante ne bakken ja nga xamante ne yàlla waxtu bu mu dëxalantek moom jotagul yàlla nee na mu ma daldi delloo bakken jooju ci jëmm jooju mu nekkoon ba keroog waxtu ba ma dëxalantek moom muy daldi jot kon yow mi yeewu ci nelaw bu dee yenentu bi daf ne la bu la yàlla delloowee sa ruux danga nga ko war a sant ne mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo ma faat ci nelaw gannaaw ci mu delloo ma sama ruux te bu ma fi jógee ko ci moom yàlla lay dellu kon ñaan boobu jullit bu nekk ci ñun war nañ kaa war a mën a salloo war nañ kaa a mën a jàng war nañ kaa war a mën a mokkal yal nañu ko yàlla jàppandal amin yaa rabbal alamin mbokk yi laata ñuy tëdd yonent bi sallallahu daf ñu jàngal ne yow jullit mi la nga xamante ne muy xéwalu yàlla bala yàlla baaxee nga di ko jëfandikoo bés bu nekk te mooy nelaw bu fekkente ne bëgg nga sa nelaw jooju mu méngoog jaamu yàlla ba ngay faggoo yiw mais ñu nopp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi FM 97.5 ñu àndandoor déglu lañu suñu yenentu bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ñu jullit bi bu fekkente ne day waaja suub ci nelaw mu defee ko comme na ko bi tegtalee nii ci hadis bi sallallahu sallam ah nelaw boobu da ci fàggu yiw ju toll ni dañuy bind nelaw jooju muy nelaw kom jaamu yàlla dañ koy bindal nelaw boobu muy nelaw comme kuy jaamu yàlla moo tax ñu ne du'aaul malaika inda nawmika ala taharatin ñaan bala malayka yi di ñaanal yow jullit bi jamono bi nga tëddee di nelaw rawatina bi nga doon nelaw nga nelawaale cet nga nelaw fekk yaa ngi sell jàpp nga julli nga ca safak witar walla jàpp nga euh, julli nga ñaari ràkk walla jàpp nga nga jël sa sijaada daldi di tocc moo xam la ngay defla la say baqiyatu saalihaat wa illa nga am li nga ubbi ci téere bi liir tuuti hatta bu dee jàngoo dara defuloo benn adkaar julli woo mais jàppal rekk nga fanaanoo ak njàpp xeeti callaange la xeetu cet bi nga tiddaale la xeetu cet bi nga la ci nelaw bi nga doon nelaw ba tax na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na taxaru haadihi l na laabal seen jëmm yi seen yaram yi nangeen ko laabal bu ngeen koy laabal lekk leneen li ci des li ngeen mënuta laabal di ruux bi yàlla daldi ko mattale mu daldi leen laabalal seen jëmm yi nga xamante ne la des yàlla moo koy mën a laabal yen na ngeen laabal la ngeen mun a laabal seen jëmm yi na nga jàpp na set na nga laab waaw ruux bi nag yàlla moo koy laabal ak leneen ak feneen loo munuta laabalal sa bopp loolu yàlla moo koy laabalal boppam moo tax yonent bi ne taxaru haadihi l ajsaadu taxarakumullah waaw na ngeen laabal seen jëmm yi su ko defee yàlla daal di leen laabal la gën li ngeen laabal seen jëmm yi mu wax ne fa innahu laysa abdan amul benn jaam ji nga xamante ni yabiitu taahiran dafa fanaan ak cet illaa baata maahu malakun fi sha'rihi ludut dina am malaaka buñ koy boolel mu taxaw ci wotu boppam mu di ko wottu di ko garde waaw loolu di benn ñaareel bi yonent bi nee na laa yanqalibu saatan min alleyli illa qaala allahuma ixfir li abdika fa innahu baata taahiran a macha allah yonent bi salaa sallam nee na amul benn waxtu bay dugg ci guddi bi walla amul benn waxtu bi ngay wëlbati yow jullit ba fanaane ak laab amul nuy wëlbatikoo moo xam gauche nga tëddoon ngay wëlbatiku di dem droite lu dut malaaka bi dina la ñaanal yàlla la muy ñaan yàlla nag ki ko bëgg a xam nag ñu may nopp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi FM 97.5 ñu ànd ak yow baaxee la la malaaka bi di ñaanal ki fanaan ak laab ki fanaan ak cet la ko malaaka bi di ñaanal yonent bi ne amul benn wëlbati ba muy wëlbati ci guddi boobu lu dul malaaka bi dina ko ñaanal allahumma buuri yàlla ixfir li abdika yàlla nga jéggal sa jaam bi lu tax fa innahu ndax moom de baata taahiran dafa fanaan ak cet dafa fanaan ak laab kii de bum doon waaj tëdd dafa jàpp bi sel juli ñaali ràqa yàlla nga ko jéggal kii de laata muy tëdd dafa jàpp ba sell ubbi alquran am lam fa doon nab nabi kon yàlla nga ko jéggal kii de dafa jàpp ba sell mu daldi yore kurusam muy tocc toccaaral di la sàbbal di la sant di sàkku ci yiw njéggal ba mu jaaree foofu nelaw yàlla nga ko jéggal kii de dafa jàpp be sell julli ñaari rakk daldi tëdd yàlla nga ko jéggal kii de dafa jàpp be sell mu daldi tëdd kii dafa fanaan ak laab kii dafa tëdd ànd ak njàpp bu sell kon yow sama frère yow sama sœur ngalla gannaaw bu ñu déggee xaddis bi ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalantek ñun ci réew mi fm 97.5 nañ leen géem a góor góorlu prochaine fois ki ko tàmm def nag xamal ne lii mooy say résultat ki ko musul xam musoo koo jëfandikoo musoo xam ne sax mbir yi nii la mel mak yow ak keneen ku ñuy waaj a déglu ngal la balaa ñuy tëddaat nañ leen jàpp ba sell ki ci mën a jàng alquran jàngal ki ci mënut jàng alquran nag na nga géem góor góorlu yore say kurus walla yore say baaraam di sabbal yàlla di ko tudd wa illaa na nga julli sa ñaari rakk mënoo ko parce que dangaa sonn jàppal ba set nga daldi di suubu ci nelaw ndax yonent bi nee na yàlla dalay booleek malaaka bu lay garde mu taxaw ci sa wutu bopp amul benn wëlbati ba ngay wëlbati ci guddi bi lu dul malaaka bi di la ñaanal yàlla ne la allahumma gfir li abdik fa inna innahu baata tahiran yàlla nga jéggal sa jàmbi diw sangam ndax moom dafa fanaan ak cet dafa fanaan ak laab bu mu doon waaja nelaw dafa set bu doon waaja nelaw dafa laab kon lii doo ko déggee fen fudul ci suñu diini islaam résultat bi doo ko mën a góobee ci leneen lu dul ci suñu diini islaam kon mu nekk diini joo xamante ne diini bu laab la diini bu set la ndax yaa ngi waaj a dem rencontre ak sa borom subhaanahu wa taala ba léegi mbokk yi ñu di leen fàttali ne rek a ah, yàlla buur bi tabaaraka wa bi léegi xéwal yam ñu xéwalal bokk na ci lam ñu waxoon rek wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha bu ngeen fi nekk di lim xéwal yeleen yàlla yenkewal du ngeen ko mën a matal ba tax na buur yàlla tabaraka wa taala wàccel nañu ndox boo xamante ne war nañ si war a mën a jëfandikoo béykat bi war na si war a mën a béy njanaaw yi war nañ si war a mën a jëfandikoo bayi may war nañ si war a mën a jëfandikoo yow mi nga xamante ne yaay béykat buur yàlla wàccel na la taw bi nga xamante ne mu ñuy wax ci alquran wa yunazzilu min assamaa'i ma'an mooy buur bi nga xamante ne mooy ñuy wàccee ci kaw asamaan ndoxu taw bi nga xamante ne mubaarakun ndox bu am barke la bu ñu demee xool ci suratul abasa buur yàlla mu ñuy won foofu ne falyandurul insaanu ila taamihi na doomu aadama bi xool la muy jëfandikoo ci xeetu ñam na doomu aadama bi xool xanaa doomu aadama bi du ko xanaa du xool la ko yàlla wërsëgal la muy jëfandikoo ci dund yamuy dund ñam yamuy dundee yàlla nee na na doomu aadama bi gëstu loolu wur yàlla ne anna sababnal maa sabba xanaa du man yàlla maa ko wàccel taw ndox bi nga xamante ne dama ci kaw suuf si suuf su wow koŋ dëgër këj ma daldi di ko nooyal suuf soosu ba mu nooy ak ndox wi nga xamante ne moom lañu buur yàlla tabaraka wa taala wàccel ñu nekk ci nawet yan nañu yàlla wàccel ndox bu am barke amin ya rabbal alamin buur yàlla nee na thumma shaqaqna al arda saqa suuf su wow soosu suuf su digir soosu ma daldi ko nandal ndox ma taw ci kaw suuf si ba suuf si nooy mu naan ndox ba màndi yow doomu aadama bi boo jëlee sa pepp bu wow koŋ pepp bu dee pepp gerte pepp dugub peppu ceeb waaw pepp mboq yu wow koŋ boo ko fa dugalee tàngooru suuf si daal ko ñoral ma daldi ko meññal buur bi nee na ma daldi di ndox summa saqaqna al arda saqa ma daldi nandal suuf si ba mu màndi ba xamante ne yow doomu aadama bi loo fa ji mu sax mu daal di la wax ne fa ambatna fiha habban ma daal la may xel ak xereñte bu toll ni pepp boo ci ji ma meññal ko ma daldi ko saxal waaw yàlla nee na wa inaban mu daal di la jox foofu noonu ay zeytuun wa xadban ak xeetu meññeef fi nga xamante ne wa zeytuunan wa naxlan ak xeetu olive ak ay tàndarma wa hadaika xulban wa faakihatan wa abban ay xeetu fruit yu nga xamante ne yàlla nee na mataan lakum loolu yëpp yóbbal la ba ma leen jagleel yéen doomu aadama yi waaye nag bu leen fàtte de wala anaamikum ak seen jur yi jur nga xamante ne ñoo leen di taxawee ngir ngen liggéey liggéey ju mucc ay boobu jur yi nga xamante ne dafa bokk seen àq ngen jox leen lañu moom waaw jur lamu moom ngooñ beeg la ko aju nanka ka jox bu ko jaay nga lekk ko boo ko jaayee jur bi amut lu muy jëfandikoo bu demee dugg ci toolu dëkkandoor bay bay xamal ne yaa tooñ su ko defee bis penc yàlla buur bi tabaraka wa mu di avertir mu ne ñu mataan lakum wax ni yëpp gannaaw bu ma leen wàccalee ndox ngeen bay la ngeen di bay ngeen faggu fa seen yóbbal jur yi tamit am liñ ci moom hmm, mataan lakum wala anaamikum yóbbal la lama leen jox seen xéewal mu ngi ci lama leen waaye nag jur bi lu moom juróom ñeneenti mbir yaako moom fukkeel bi jur bi moo moom wala ah xamal ne lama jox di la nga xamante ne mooy juróom mbir bi yaa moom leneen li ci des jur bi moo moom kon nanga nga xel la jur bi moom la jur bi moom bàyyee ko jur bi la la yàlla jox loolu nanga ko doyloo boo ko defut nii ah wóorul de yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax ci alquran ne ah bu ngeen joxut jur bi la mu moom nga la jur bi moom nga jëfandikoo ko moomale ko sa bopp ne ah fa iza jaati saaxa bésu xaacu ba bésu xaacu ba bu jote bés bi nga xamante ne kay xaacu bu xaacoo ba mbindaa ni ñépp dee ñu daldi dekki ci kanamu borom bi ah bés boobu bés bu tiit la de yàlla daldi ñu wax bés boobu la fay xew mel ni am ku ne waaw bés boobu ana la xew bés boobu yàlla ne fa ida jaati saaxa bés ba malaaka bi di xaacu bés bi nga xamante ne aji xaacu bu xaacoo bi ñëpp daldi dee ñëpp faatu mu am beneen bés bi nga xamante ne mooy njëlbeenu bés ci yowmal qiyaam buur yàlla ne yawma yafirul mar'u min axi keroog ngay gis nit ki muy daw mbokkam yow mi di borom jur bi yow mi doon jël la jur bi moom nga di ko jëfandikoo ba boroom jur bi ba boroom tool bi gis sa jur yi ñëw dugg ci toolam yàq fa keroog dinga daw balaa boroom jur bi di la gis ci mbooloo bi mu di la laaj àq ba dox sa digganteeg moom moo tax yàlla ne hmm, fal yandurul insaanu ila taamihi na doomu aadama bi xool la ma ko jagleel ci xeetu ñam yamuy jëfandikoo xanaa du man yàlla may buur bi nga xamante ne an naa sabab nan ma a saba xanaa du ñun yàlla ñoo wàccee ndox jóor ko suub ko ci kaw suuf si axakañ yow la de yàlla yàlla ne ginnaaw si summa saxaxna al arda saqa ñu daal nandal suuf nandalin bi nga xamante ne da ciy naan bi moon yàlla maa def loolu ah kañ yàlla yaa def lii de yàlla ne topp si fa ambatna fiha xabban wa inaban wa gadban wa zeytunan wa naxlan wa xadaa'ika gulban wa faakihatan wa abban yàlla nee na limal limal ni yëpp lakum yóbbal la la leen jox waaye nag wali an amikum jur yi ci la de la jur yi moom nang leen bàyyeeg lañu moom yàlla ne fa ida jaati saxa ah na ngeen bàyyi xel bés bi nga xamante ni bés bu mag la bés bi nga xamante ne bu ah ah bés boobu bés bu mag la de bés ba je aji xaacu bi di xaacu mooy bés bi nga xamante ne yow ma yafirul maru min axiihi di nga gis doomu aadama muy daw mbokkam doomu aadama bi muy daw xaritam doomu aadama bi muy daw am di jàmmam ndax lu xew xew-xew boobu su ko defee bu ñu yàlla baaxee ba ñu delsi ci beneen yoon dinañu wéyale ko waxtaan wek yéen mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a jëkkatee jotaay bi saa ili na mawla jalla wa ala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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.